cour suprême kase na li nga xam ne ni moom la maire affecté woon moom ak ay conseillers moom la affecté woon Salin du Saloum muy 845 hectares yi cour suprême annulé na ko dat baa ngi nii dossier baa ngi nii mën nañ ko woon ñu gis ko nit ki nag bu fekkee ne boo meree wax bu fekkee boo meree wax jooy ci sa justice jooy ci say autorité yàlla atte na suñuy autorité suñu justice dëgg gañ doon xaar ci ñoom doxe nañ ko atte nañ la nga xam ne moom mooy dëgg jox nañ ñu dëgg kon dana yella comme bañ meree dañoo doxoon doxu ñaxtu bu ñu demee bu am satisfaction it nañ waat ak askan bi jàkkaarloo suñuy autorité jàkkaarloo ak justice sénégalaise mais jaarale ko ci maître Sarr ne leen jaa ngeen jëf bu leen wàccagum li ñu mën a xam te mën koo wax mooy bu fekkoon ne ñun ñëpp dañoo jeex takk war a judduwaat man mii di wax ak ñi ci sama gannaaw taamuwaat nañ Sénégal gii ndax am nañ ci yaakaar ci suñ justice te justice fu mu amut dara du fa dox développement du fa am beneen bi mooy lañu ñu gëmaat te di ko topp ba yegg si fii nii mooy la ma waxoon keroog ba ñuy marche tànk ya Macky Sall tegoon wax ja mu waxoon du ma protéger kenn koo xam ne ki yaa ngi ci njubadi lii nii firndeel na ko ñun daal rafet na njort ci suñu réew mii rafet na njort ci suñu justice bi amuñ lu ëpp jaajëf kon ñoo ngi leen di jaajëfal ci ñi ci jàpp di population bi ci ñi ci jàpp di ay autorité de près ou de kenn ku ci nekk fa nga toll sant nañ la gërëm la beneen bi nag mooy suñu localité bii di commune bu Dya ñun dañoo bokk ndey bokk baay mbooloo na kenn ku ci nekk yor nga sa xalaatu bopp waaye ñoo ngi woo mboolem doomu diiwaan bi xam ne noon amut pi noon moo fi nekkut ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li ñu war a xeex mooy kenn ku ci nekk lii intérêt yi askan bi est ce askan bi nag li ko mën a sottal mooy ñu jiital ci njub jiital ci dëgg sax ci njub jaamu yàlla li ci des ñu mottalee ko liggéey ñun kenn ku ci nekk ñu ngi lay woo gërëm nañ nag képp koo xam ne ki jàpp nga ci moo xam nga jege moo xam nga sori moo xam ngay autorité moo xam nga avocat moo xam ngay justice tudduñ sëriñ tudduñ doomu sëriñ ñun population lañ tudd mouvement la boo xam ne bii MC la tudd mouvement pour combattre l' injustice yemuñ pays nag lépp loo xam ne injustice la fii ci suñ diwaan bi sol nañ suñuy dàll takk suñuy ndégg danañ ko xeex ba kara ñuy am dëgg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi kese lañ àndal salaamaaleykum wa rahmatullah